biir APR euh, naka nga gisee avenir u Amadou Ba ci biir Benno Bokk Yaakaar. waaw xam nga nag euh, fulla ak fayda borom loolu la wala fo fulla ak fayda borom am na avenir bu ko gëmee man nag sama bopp laa gëm man sama bopp laa gëm mais moom Amadou Ba ma koy nuyu de passage. am na avenir politique bu ko gëmee ndax dafa am expérience dafa am jàng te xam na état te it bëgg na réew mi kooku yooyu boo ko dajalee ah li war a des nga taxaw dëggal sa bopp kooku jàpp naa ni bu waree dëggal boppam amul problème parce que man PDS laa nekkoon. loo koy man PDS laa nekkoon en mille Macky Sall dafa génn ma ànd ak moom. looy parce que dama jàpp ni Macky li tax mu génn ay raison la ay kii la. léegi da nga bëgg mu en bëgg mu génn. wax naa ko ko lu ma koy conseillé wax naa ko ko nee naa ko lii ak lii ak lii laa bëgg léegi nag. mooy mu génn loolu loolu laa lay xelal. mu génn demal boppam. ndax mu génn demal boppam. waaw loolu nga ah, ko conseillé waroo xaar ñu cax sa loxo nag. ok léegi euh, ci biir foofu. man Nourou Niang man. Mhm. suñ ma tànnoon man. Mhm. def ma candidat ñu def ko lu ñu ko def. ma jël sama responsable. si loolu laa doon ñëw. si loolu laa doon ñëw dégg naa euh, yéen a ngi xëppante acide foofu noonu. au sein de l'APR euh, ndax ñii nga xam ne. audace bi nga jël nii di ci di di di jël position bi nga jël nii am na ñu ko jël ñu ngi leen di menacer dégg nañ ko euh, xawma ndax ci ñi ñuy menacer nga bokk am déet ce sont vos propres frères de parti. Mm-hmm. ñoom ñoo leen nekk di di di menacer malgré loolu. yaa ngi koy wax léegi euh, kenn déggul Amadou Ba kenn gisu ko ñëw na ñu accueillir ko et tout sa s'attend à ce que mu def sortie ñu xam fan la féetee ba léegi kenn déggul kenn déggul kenn déggul dara euh, donc déjà seen seen seen avenir au sein de de de de de l'APR déjà ak position bi nga jël bu commencé radicale même su fekkee na nekkoo di ko fësal carrément mais junj doy na boroom xel mhm, mhm. donc seen seen avenir ak euh, au sein de l'APR ainsi que seen camarade de parti nan lay demee bu fekkee nii ngeen tàmbalee di rayante ni mon frère defe naa ne man ñu njëkk génn dem ci ci média bi hmm. ci laa bokk ndax jàpp naa ne bi ñu falee gouvernement bu bees bi deux semaines ma dem ci benn tele benn émission bu ñuy wax grande gueule je sais pas euh, euh, bugguma tudd tudd télé bi mu nekk hmm. voilà c'est pas grave benn la rek defe naa ni ma def fa émission bu am solo hmm. si biir émission bi laa jot ay message ñuy wax ni seen dafa war a jël ay décision pour ñu dàq ma si APR bi loolu amee tamit man jël naa samay responsabilité wax la nga xam ni moom laa war a wax wax ni parti boo xamante ne kenn ëppalewu ma fa dara kenn mënu ma fay dàqee noonu ku may dàq nag nañ jël ay décision ñu dàq ma bu ñu ma dàqee je prends acte parce que li ñu def ñoom ñëpp ba ci président Macky Sall man moom laa def. léegi yow lan la ñu def. amadu Ba parce que sànq wax nga ko fii lan la ñu def Amadou Ba. lu tax ba mu ñàkk ba mu am en tout cas résultat boo xam ne yéen jàpp ngeen ne bu ñu amuloon taxawaay boobu dina am bu gën boobu lan lañ ko def concrètement. waa xam nga bu fekkee dañ laa tànn candidat. Macky Sall même bu fekkee ne du mag Sall moo ko def même bu fekkee keneen a ko def si suñu biir parti dama ne nit di su subi subir. si parti bi nga nekk ay injustice yi tax nga génn. c'est ça man même bu ma Macky Sall le président de l' alliance pour la république deful dara am na lu may subir ay injustice sama biir parti ma baleen fa. Mm-hmm. loolu nag mën ta ñàkk nag parti boo dem mën na am coow parce que politique ak coow ñoo ànd man ragaluma coow. waaw mais lan la exactement. xaaral non non lan la ñun ñëpp gis nañ ko dem nañu ay élection am na ñu jàpp am na ñu saboté. ok yaa ngi am na ñoo xam ne dañoo jàppale opposition bi pour ñu accès au comme ñan. non man du ma xam nga du ma du ma def déformation. est-ce que comprendre mais bu jotee ñu ngi ñu ngi def toutes les informations nécessaires yoo xam ni ñu ngi si di ko jàngat moom laa la wax. def remobilisation jàngat bu ñu jàngatee nag la ñuy am au finish dinañ ci communiquer ah yi xam ni lii moo xew. man ça ce sera ma dernière question est-ce que. Euh, fi ngeen ak agsi ni tey ci ay résultats wu élection ak seen candidat est-ce que da nga jàpp ni euh, manque du courage bu Amadou Ba mu leen fi andi ba tey. non man jàppee moo ko manque de courage. parce que li ma jàpp rek moom mooy parce naan su man ma dem su doon. waaw su doon te moom. li ko def yëpp ak ko teg yëpp. mu ngi toog di subir. est-ce que loolu quelque part nekkul benn manque de courage. man bu ma Sénégalais yi gëmee wóolu ma damay dem. politique daal lenn rek moo ma dal. ah muy élection locale passée grand gëm ma wóolu ma Macky Sall tànn keneen ma nangul ko parce que kilifa yu bari wañ sama loxo yaa ngi dégg parce que da ngay rus def dara ngir dara <coughs> comprendre mais li ma jàpp mooy euh, peut-être man ñoom ña ma si fekk wañ sama loxo ñoom mën nañu dem wañ loxo en tout cas moom la ñu tànnoon moo waxtaan ak président moom la président tànn man def naa si la ma sa war a def. dégg naa seen diggante ñagas na biir campagne bi sa dégg naa xuloo bu métti la ñu. xuloo Amadou Ba ak euh, Macky Sall. Euh, loolu noonu est-ce que yaakaar nga ne euh, li koy li li li koy du tax du gën a ñagasal retouru Amadou Ba au sein de de la paire. bu fekkee xamaguma ñoom ndax xuloo nañu wala xuloo guñu. parce que dañ ko forlaal ci rek si si nii laa ko dégg rek ni ma jàppee. Mm-hmm. mooy peut-être mën nañu am. rëq-rëq seen diggante mënul ñàkk. parce que nag ñaar ñuy ànd aussi loolu foog mu foog mu am si. ndax Macky Sall ku ko xam xam ne liggéey na si réew mi aussi lu am solo. loo xamante ne euh, euh, sénégalais yi moom lañ doon xaar si moom. si lu bari lu mu def dëgg dëgg dëgg la nag lépp mënut a mënut a motee. ba mu naan dina am yoo xam ne du ñàkk peut-être mu am rëkk-rëkk ndax état mënul motal lépp. mais nag diggante mag Amadou Ba man mag mënu ma mënaguma see sori. ndax Amadou Ba déggaguma mu wax si Macky Sall ma mu wax léegi mu ñëwee ba léegi ñàkkul waxtaan ngeen est-ce que euh, gis nga ci Amadou Ba benn fulla euh, buy bu bu ko mën a pousser mu ñëw jàkkaarloog Sénégal yi fësal. fi nga xam ne foofu la jëm ak ñoom. Amadou Ba bi ma gis nii. Hmm. ku jóg pour pour Sénégal man bi ma gis man. Hmm, man Amadou Ba man Nourou Niang man Amadou Ba bi ma gis. Hmm. ku pare pour jël ay responsabilités. man Amadou Ba bi ma gis ku pare. pour liggéey Sénégal la ku pare pour dugal loxoom si biir senegal ak nu mu ko mën a defee nag si ngor ak dignité ba Sénégal euh, jox ko bopp defe naa ne dina si nekk.